asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسبك وسبك حمس عجم وسبك مهما سأتينا وسبك بحث طهو هابو يرزق يا من كيلك تهب لي وسقني كنا أعالي لأسي عجلا بسم محمد كتاك من الله كما يسبهم الواء وحمنا وكنا سورا الصلاة والآدي والهباء وشاكم أجيب سلف من حسن دي محمد تلك يا الله سمع الكلام محمد محسن محسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu chef ñëpp waaw xadima waaw xëyru akab sahin waaw sa xadima yi nga xëyru xadim xuni ok ñu seet ñëpp rek biir andi dëgg rek wala ku bëgg a jëriñ sax xol waaw boo dee wax Maxtaar mooy laaj laaj bu am solo jàng alxuraan ji ñu alxuraan tedd ñëpp xam nañ ne moo gën a tedd lépp moom ku def foofu doole na waxar fu waaxid min alxuraan afdal min nabi àllaani aw na alxuraan moo gën a tudd alayhi salaam moo gën sayyidina Muhammad salaam kon moom kon moom alxuraan gën gën ci li ne ci dënd bi lépp alxuraan ci gën kon kon moom kon moom tëdd la waaye nag nee na ñu koy jàng moom moom koy jàng ba noppi daal te gis jeexital yi maanaam waaw loolu nag mu doon waaw loolu lay imaam Xasali radiyallaahu taala anhu mu qaddasa llaahu sirrahu wa sirranaa bi sirrihi wa bi sirri Abdul Xadim waxoon na ne na ne alquran mawaatin yi muy yi muy tanaqul di jóge ci biir jëm fee moom itam suratul baqara boo boo ko xoolee yaa ci ja yahud yi dem wax ca nag wax boo demee feneen mu mu suratul nisaa yi mu wax ci jigéen ñi miraas ak nangam bu dee koo xam ne day xool arab bi daan ah miraas lay wax miraas macha allah faqih bi kon moom day mel ne moom ci miraas ma rek lay lay lay xool defe naa ci waxtaan ko. mu dugg naa albertu ko doon baax ma baat yi seetlu naa ne ndekete suwar yi suuratu suuratu suuratu nangam ci alxuraan suur baqara de de ndekete ku mel ne ne man ci bëggoon a def dara werdu suuratu nangam suuratu yaasin yi mu werde ko rek yaasin yaasin yaasin lañ werde li ab lim su su su ko defee lam soxla ca saar wa dana ko ca am loolu xam naa loolu mooy ñangiinu suufyanke yi ñangiinu suufyanke yi nga xam ne nekkoon moo tax suufyanke yi moom sa laaj boobu tax tax ñu ñuy soxla digal ñu soxla digal digal nañ la di jàng alxuraan nga xam ne ndigal loolu du bokk ak ñi ko ñëpp di di jàngee mbooloo mi wala ñu jox la ab aaya ne la de ko def de ko sikkar aaya alif lam mim sa ne woon na du ma ne araf la alif araf la lam araf mim araf bu ne alif lam mim am nga fan weer yool araf bu nekk fukki yool la kon mu mel ne kon ndekete ndekete ndekete addis boobu dëgg kon alif laam miim mu ñëwee kon mas na koy wedd kon ba noppi di jàng alxuraan ba noppi am am am ci loolu lépp ak yeneen nag yoo xam ne sew na ja xam ne kon jàgginu su su su fekk yoo xam ne dimanche la daana ko junju di ko gaaral gaa yi waaye mën naa am rek jamono adduna ji tax na ba yooyu yëpp daanaka boo ko fekkee ci cër yi doo ko dégg. bu dee ñangin yooyu la moom alxuraan moom am na am na am na am na jaxet lool ma ne xasida yi danaa koy danaa ci tasarruf yàlla dana ma ci tasawur tasarrufal ma di ma di ma di ko jëfandikoo waaye nag loolu nag sooy sooy def nangam mu mel ne ne mu mel ne ne la su fekkee wax naan ulqiya fi firawin kasa ñu ne la tàmbalee ba sàngam xasida gi nga nga tàmbaleel sàngam nga wax sàngam ba sàngam loola xam ne loolu loola moom loolu mooy njànginu suufee kii wala ñuy wax alfahmu anillah soo koy def moom da nga xam dëgg dëgg yëg njëriñ la waaw ginnaaw ginnaaw turu saar wi rek ndekete code la ci saar wi lépp loolu mën naa am ko demoon ci teew wala mu xuraan mën naa am nañ la koy waxale bu bokkut ak moom waaw wala mu xuraan moom ab taarix la rek buñ lay waxal boo xam ne mën naa am sax ka la koy waxal sax ka la koy waxal mën naa am déggut yow yow mi ko jàngee man nga man nga man nga nga gën a dégg wala wala wala yow doo dégg dara quoi waaw nga xam ne kon imaam xasali wax ne nag moo tax moo tax si ka tutur tutur yàlla moo gën a gaaw jàng alxuraan waaw ndax ndax xam naa damay seetlu rek da mën naa am ku digg arab moom for for ci arab yi moom moo lay làq moo lay làq secret bi bu dee su su fekkee nag moom bu ko dee jàng moom dugg si arab yi la la dañ ci ginnaaw arab yi di lay déglu moom maanaam sax alfaham muhanillah da koy déggee ci ca ka ko wàcc woon ci dimanche islam loolu sew sew la ko kon si kër tur yàlla boobu la na julli borom bi ne inna salaata tanhaa anil fahshaa'i wal munkar julli moom day day laabal nit ci wakkaat da wax yàlla moom gis moom boppam gis na daal muy julli waaye dara waaw julli ñi koy jumaa yi jumaa yi dafay dal gaa yi ngi julli koor koor gaa ñoom yàlla nga fekk jàmm ji ay at yu bari ak gis gaa yi di julli ak jàng xawaan dara bu buñ ne kii ñu ne nañ jàng kaamil wàcc ay nangam téeméeri kaamil dara loo loolu kon la góor ga waxoon rek ne waa ji diggoon Sayyidina Umar radiyallahu anhu di mocce mocc nag mooy mucc moom baat bi war a wax ne mucc la nga wax loo xam ne waaja da ciy doxe mucc ñu ne mocc muy mu di ca moccee paati am am xanaa am nga fekk loolu moo mu dégg ko rek am ko wéru di mu ne ko mu jàng paati af ko waaja wérut góor góor gi ne ko déet paati omara kon waaji waaja kon waaja waaja waaja loolu kon dégg nga bi bi sëñ Fallou leela woon addis ba mu yéeme lool bàyyi si njaay gédé sëñ xaadim sëñ xaadim sëñ xaadim nee na bàyyi si njaay gédé gédé moo moo xam nettali sëñ Fallou dafa am toog am gu ab ab sërif naar toog fa parce que am naar xam sërif naar am sërif toog fa nee na nag sëñ bi gaa yi ñu ñaan lu muy ab ci suuf di joxe naa ba ne ko waaw loo yaa cheikh loo jublu ci lii mu indi hadis ba bi turbati ardina wa riiq bi riiqi baadina waaw xaw ma nu ko waxati hadis ba maanaam maanaam daal mooy ci sun suuf si ñi ñenn ci noonu tefli ca dana saafara sunu ak yi waaye la maa maa maa maa ngi daa gis mbokkum daara moo xam ne moom gone gi gone ko am dagg-dagg da daal tëri addis bi moom tefli ko ci tefli ko ci suuf daal ko ci ne ko teg ko ci kii ba mu mu daal di di fende ndegere suñu wàllu moom firi lañu addis bi firi goo xam ne noonu naar boo xamu ko moom man mi xamu ko woon ndax arab yi ñu ko làqoon ne nekk tey bi bi riiqi baax dinaa tifli lii tey ñenn ci noonu nekk tey suñ suuf sii de ñenn ñu ne fañ dëkk suuf sax am na ci ñenn ñoo xam ne buñ ca teflee mën naa saafara jàngoro du sax saafara dëgg dëgg dara jàngoro xam nga saafara xam nga loolu nee na nar bi daal di dindi kaalaam foo loxob si lañ fallu waaw waaw waaw waaw waaw ni ko baxin baxin xam nga xam nga xam nga kon nar ba nar ba digg arab waaye ni waaye arab yaa ko làq batin ba waaw kon kon ba tey kon inna salaata tanhaa anil fahshaa'i wal munkar julli dëgg ndox mi nga waajal ko ndox mi nekk mutlaq boo demee ca shawro astaxna ji ala lu mu tuddee mu tuddee al mawaasinul al qudriya yoo xam ne si si si keneen xudra alayhi salaam la la gis moo di ko wan fii masahib islam yi yëpp daje nekkate mu ne ko nekkate benn lañ seen yoon yaa fasantikoo rek waaye waaye fa ñu daje benn la feccantikoo kon feccantikoo fecciko lu fasantikoo rek feccantikoo waaye mo- moo tax bu demee ba nag fañ jëm benn la fañ jóge benn la ci la ci la ko waxee ndox ndox mi nag bu nekkee mutlaq noonu boy amul tënkuwul ci dara xëy na melawaak caf ko ak yooyu tënkuwul ci dara bu boobaa day am ruuxaani ak ne ak leer ne ko leer googu na nga xam ne moom ndox mi léegi kon xëy la bu boobaa day am ruu ci dara duggee nag da da koy rey ruu googee nag mu rawxaan boobee day dugg ci xol dugg ci aw ci cër yi dem ci xol ya ndax xol bi mooy réseau bu mag bi. mooy centre bi nga xam ne ci la bagage yi jóge ci cër yëpp di daje kon kon moo tax kon yow moo tax dana ani fas yaay wala wala munkar cër yi kon bu ñu mujjee ci yooya xol ba daal di laab kon kon loola nga daal di di yow nag pàkk bi bi ngay jullee nga moom ko waaye ala nga am ci ndigal boo ci amul ndigal dem ci kër jàmbur ëpp jullit la du jullit nga julli fa te amoo ci ndigal bu bu ne la tooñ nga ma kon ba ba nga julli jiwaat julli woo. nga moom pàkk bi yooyu si yére yi nga sol nga moom ko te mu te mu lew nga am ci digal mu am leneen lu fuqahaa yi fàtte nag wala ñoom du seen mbir su su su fenk yi koy ittiwoo mooy noonu nga xam ne pàkk beeg ak yére yi lépp daa war a lew nga sañ nga sañ koo jëfandikoo naka noonu sa suuxu yaram wi daa war a lew bu bu bu lewul ñu bàkk ba rek bàkk ba nga xam ne moomu ko julli ci ci lu nikkal loola kon julli woo kon naka noonu kon bu sa suux bi lewul kon julli woo kay kon kon kon mu mel ne kon loolu dong doy na ci ne kon mën naa waaj li muy julli julli julli ñu ne seen julli gu bari ga ba noppi te dara la jeexatul kon loo kon loola. waaw teewlu mu ñëwagul teewlu ak nangam nangam yooyu ñëwagul noonu waaw waaye waaye yu simple rek yu caractère yi rek yooyu rek julli ñu boobu ñu ko xel suñu mag ña seen satala yi dañ daa yor dañoo bëgg satala gi mu wér leen ci nga ne ndox mi ngi def mu laq la mu boy la tënk wut ci dara ko ne du ko laal jigéen du ko laal sunu sunu maam jëm samba anti ci bu ne ñu suñ am suñ ko kii la woon maanaam léegi satala mu nga jigéen du ko laal. moo koy duyel boppam ndax ndax mu wër ko ne ndox mi ndox mi wër na ceng ni ko charia waxee si seen satala gi suñ tubaab saxoon faadal bu sa fataw mi mu jëkk lool satala la gaa ngi ci wetam moo kay satala moo xam ne satala gi gët ndox mi lew na ko ndox mi mut laq la yëpp mu leer ko ndax ndax loolu mooy waajtaay wi loolu lenn la ci waajtaayu julli bi nga xam ne bu amul julli ko moom daanaka kon xanaa yow ci ci waaj a day day firantal waaye ci waay julliwut kon ndax xam naa kon kon loolu ci tënk rek kon yëf yaa ngi woo ko mag ñi rek ñoom dañoo yittewoo diine lool moo taxoon amoon na jeexit waaye nag gaa yi tey moom yittewoo diine waaw aksaruhum laa ya'lamuun wala aksaruhum kay munaafiquun so